asalaamaaleykum maa ngi tudd Docta di artiste graffeur mais di président euh, de la structure bu ñuy wax Doxandem Squad bi mooy première structure de graffiti en Afrique buy organiser aussi le premier festival bi nga xam ne mooy festival de graffiti en Afrique. Euh, Festigraf euh, toog nañ normalement ren dañoo waroon wax treizième édition mais li tax mënuñu ko wax mooy ñaari at yi fi jàll gis nañ li fi xew mooy mbas mi fi duggoon ni mu ni muy ni mu defee li muy def mooy. yàq na defar na waaye ñun jàng nañ ci te buñ ci jàngee ba jógee ci ñaari at yooyu nga xam ne mënuñu def dara bu ñuy ñëwaat dañuy ñëw ak doole doole bi mooy au lieu nag ñuy def rek di ko yemale euh, ci ndakaaru dañ ne fes jàng nañ ci euh, li xew ci mbas mi dañ koy yaatal yóbbu ko ci yóbbu ci ko ci yeneen dëkk yi ndax dëkk yeneen dëkki Sénégal yu mel ni Saint-Louis Saint-Louis ñëpp xam nañ ne la fa mës a xew yëpp dafa dafa am euh, njeexital ci sunum ci sunum histoire dafa am njeexital ci sunu dund mooy que muy moo xam la fa colon yi def may ak tamit culturellement la nga xam ne Serigne Touba dund na ko fa ak keneen ak keneen ak keneen donc am na impact bu rëy. boo xam ne ko am ci suñu histoire tamit ña fay nekk dinga xam ne di ndaw di def graffiti yoon la ñu jël lu mel ni Festigraph indil leen ko dañ ko daan seen parce que fu nekk lay nit di jóge ci àdduna bi ñu participer ci Festigraph pour ñu da di yoon ñu jël loolu yóbbu ko foofu te buñ ko fa yóbboo dina permettre aussi bés ñëw ñu def benn spécial Festigraph euh, biir Ndar wala beneen beneen dëkk ci ci Sénégal di dex nag ne ren bu ñu jugee Saint-Louis dañuy ñëw ndakaaru ndax dafay tombé biennale ndakaar Dakar Festigraph di indi benn particularité mooy que ne nit ñi nga xam ne dañuy ñëw dañ si kumpa wala seetaan si Festigraph dinañ mën aussi gis li nga xam ne mi ngi am ci biennale bi. d'habitude dañ daan jël Festigraph dëkkal ko euh, euh, Douta Seck waaye ren dañ ko yaatal ne nañ ko indi fii ci suñu kër muy kër muy Blaise Senghor ñu ñu dëkkal ko fii ñëpp ñuy ñëw ci Blaise Senghor aussi daj ci li nga xam ne moom mooy am ci Festigraph dolli ci ne Festigraph tamit dafa am benn benn benn bés boo xam ne dañ koy jagle soxna yi mooy que ni ay jigéen rek li ñuy jël ñoom it ñu graaf euh, di graphe boobu ñuy def dañ koy dañuy immortaliser ay nit ñoo xam ne ci seen i liggéey ci seen i dund ci seen doxalin am na njariñu ci am na njariñ ci population moo xam muy góor moo xam muy jigéen tamit ci mbir moom am na ku ci mel ku ci gën a ràññee ku mel ni Zeynix li muy def noonu am na ay xale yu mel ni Dacha yu mel ni Caat ak ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ aussi ñoom it ñu nekk ay ñu gën a raw Zeynix ci loolu donc di def que ne ñooñu bu ñu defee mur boobu ñun dinañ mën ci projet boobu ñu lancé woon tuddee ko trois cent 365 jours pour la cause féminine ñu mën ko jëmmal ci ba ci biir Festigraph di def que ne nag yaatal bi tax ñu xam ne pandémie bi sax am na leen lu mu judduloo mooy que ne graffeur yu bari dañoo commencé nekk sur le digital yàgg ci trop di ci def affaire ñu ne nag loolu il faut que li nga xam ne jur na ko mooy lu mel ni ce qu'on appelle les NFT qui est euh, non fungible tech benn système boo xam ne mu ngi sur le l'environnement virtuel ba nga xam ne nit ñu ba artistes yu bari ñu ngi ciy liggéey di ci am koom à travers le nga xam ne mooy xaalis bi nga xam ne mooy daw ñu nit ñu na leen jural koom mën na leen jural euh, ubbeeku ci àdduna bi ñu moo tax ñu créer ce qu'on appelle benn performance digital performance digital performance lañ ko tuddee boo xam ne am ci biir village bi donc ku ñëw ci village bi di nga ko gis ku ñëw ci village bi aussi di nga découvrir panel mooy waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaan ci nga xam ne graffiti impact bi mu am ci société bi ak impact bi nga xam ne société bi am na ko ci développement graffiti bi donc Festigraph cette année mënuñu wax Euh, treizième édition mënuñu yem ne onze dañ naan dix plus parce que ñaari at yi ci yokk ak at bi tey mu ñetti at donc année prochaine mën nañu wax douzième édition. Hmm? Fesigraf festival la boo xam ne festival la boo xam ne day dajale ay nit ñoo xam ne seen i métier mooy bind ci mur yi di transmettre ay message di wax li dëkk bi di doxee ak ni dëkk bi doxee ñu ci joxe seen xalaat moo xam euh, école bi la moo xam. Euh, sécurité bi la moo xam euh, wér-gu-yaram gi la moo xam politique bi la moo xam sécurité bi la euh, ñi ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci yooyu Fesxigraph mooy benn benn benn événement boo xam ne da leen di permettre nit ñi gis leen xàmme leen ràññe leen ñu mën a tamit ñoom it jàkkoonteeg nit ñi population wax leen ñun lii la ñuy liggéey te njeexital bii la am ci seen dund